mu mel ni it ñu mën a doxal islam bi fi mu toll jeunesse bi dañu am part de responsabilité bu yàgg part de responsabilité bi nag mooy kenn ku nekk fexe ba diine ji ni ko yàlla bëggee nga interprété ko niko sa bàkkeel bi lu am solo fexé ba diine bi ni ko bëgg nga interpréter ko niko ko sa roh bëgg bañ ko interpréter niko sa bàkkeel bi lolu sew-sew lu ko xamni ñu bari ñu ko dégg ndax tay mën naa ni gouffre bi ñu dugg ndax ñi di ci biir gouffre bu waaw ñëpp xam nañ ni ñi di ci biir gouffre bo xam ni au fond sax li nekk ndax ñay jàngale ñu dañoo jàngale ñoñ doon xaar ci wax yu rafet wax yu ñaaw lañu yëkëti yëkkati doon xaar ci tarbiya nit ñi ñu ngi leen di tarbiya pour delloo alal ñi ci seen pos ñooñu waroon yabal nit ñi jàkk yi ñu ngi leen di yabal ca tool yi pour ñu bàyyi leen kon ñu ngi ci buuf bu metti loolu nag li ko indi mooy interpréter diine ji selon suñu bakkan mooy kenn ku nekk na ko bëgg na nga xam ni noonu la lay dikki na nga xam ni noonu nga cee gis sa intérêt personnel ca kan noonu rek ngay jàngale lii te fekk diine dépassé na jàngale ko te teg ko ci bakkan parce que su fekkee da ko interprété ni ko sa rox di dégg forcément rox la mu bëgg mooy li yàlla bëgg li rox bañ mooy li yàlla bañ kon booy jàngale bu kàddu bu génnee kàddu bu neex yàlla la jox kàddu bu yàlla bi kontaan la sooy jëmee nit ñi ci yàlla nga leen di jëme kon il faut ñu xoolaat la ñuy interpréter texte coranique yi waaye la ñuy interpréter shariatu waaye la ñuy ànd nit ñi jëm ak ñoom ci ndax sharia moom sharia nga cay dégg lii parce que kii nii la déggee li yonent bi wax mu keneen dégg que nii yëg ni nii la déggee li yonent bi wax mu waaye kenn ku ca nekk am nañu ñoom ñaar doonte kenn ku nekk am na dégg-déggam kenn ku nekk dana ni am na lu ñu bokk la bokk mooy qualité bi la ñuy nuroo mooy bëggante yiw bi ku nekk bëggal ko sa bopp Nouril Moutalli Sam TV la lumière salvatrice Nouril ملسم